mais en 2011 taxawee wuñ nday ji seex certes nday ji seex lañ taxawee mais en 2011 gis nga lii euh, c'est c'est c'est c'est c'est les mêmes c'est les mêmes euh, nu ñu koy waxatee reproche la xaw ma critique la xaw ma remarque la mais en 2011 2012 tout le monde disait que c'était Macky qui était derrière nous tey lan lañu nit ñi di wax yéen a fal ba léegi on on on pas les gens n'arrêtent pas de nous dire ça mais 2011 quand même reproché woon nañu on doon financé. waaw non après loolu feeñ na franchement après je pense feeñ na après gis nañ ni euh, dafa am ñoo xamante ni dañ leen doon financé ci M23 bi wallahi lazim euh, wallahi lazim laa la wax lu ma dul faral di def amul kenn ku mës a nekk suñ ginnaaw wala ku ñuy financé très honnêtement. Mhm. c'est après 2012 c'est après 2012 après l'élection de Macky Sall ci lañ commencé liggéey ak ONG yi et ci ay projet mais 2011 mhm. ba 2012 amul kenn ku mus a taxaw ne moo nekk suñ ginnaaw wala mooy yëkkati dërëmam di ko def ci ñun mais fii nag bon Sénégal la comment vous la candidature de Ousmane Sonko mais mais mais mais c'est une demande populaire Ousmane Sonko c'est le candidat du peuple du sumay wax du loo xamante ni maa ko def ci nit alors sa candidature c'est mooy di mooy di gën a normal mooy ki nga xamante ni moo gën a éligible de parmi tous les candidats yu ñuy wax. ci ban critère nga ko teg. critère bi ma ko teg mooy ki nga xamante ni tey jii amul lenn lu ko yoon toppee loo xamante ni crime la buy impacter sur les populations. am na délit bu ko topp quand même. waaw ak crime bokkul. oui c'est vrai xam ak crime bokkul. te mhm. délit bi yow yaay sax ñoom ñoo créé un délit ah parce que jàpp nit ki. topp nit ki lënjatu nit ki mhm. ba yoo yaay nga ne nit ki dafa dugg fenn bi mu duggoo foo fenn doon fa maase wu dafa siif ngeen koy toppee siif di ko toppee siif ba xëy ne ko sax ndekete siif gi ñu la doon toppee defoo ci dara menace de mort bi defoo ci dara waaye dañ lay toppee leneen loo xamante ni bokkul ci sa kii mooy da ngaa def détournement de de de de jeunesse c'est-à-dire il faut que jot na tous les Sénégalais am le courage de dire à sa Sall et cette justice la vérité wax ji foofu la ne ah. problème c'est Ousmane Sonko deful lenn lu dul bëgg Sénégal ak di topp li nga xamante ni moom la sénégalais yi bëgg ak di leen jaay li li sénégalais yi bëgg c'est aujourd'hui loolu moo ko may li mu am mais du kilifa bu taxaw ne bëgg leen Ousmane Sonko du keneen ku taxaw man musuma taxaw ne voté leen Ousmane Sonko wala bëgg leen Ousmane Sonko wala topp leen ko musuma ko def mais sénégalais yi ñoom ñoo taxaw ne la moom kese la ñuy topp dégluwuñ kenn lijjantiwuñu kenn toppuñu kenn Ousmane Sonko la ñuy topp te loolu la moo ko waral. Ousmane Sonko moo leen moo leen jaay un projet boo xamante ni c'est le rêve de tout de tout un Sénégalais nañu waxante dëgg. yow gëm nga ni dina mën a samp na tam 2024. dëgg loolu li ma la wax euh, dafa mel ni tey jii nga ne màggal Touba gi am na te nag amu ci xar amu ci. xam nga loolu wala gàmmu gi amul nag amul xar. amul berndeel amul berndeel c'est-à-dire Sonko mooy nag ci màggal di xar ci màggal. donc on peut pas faire un màggal Touba sans rey nag ak rey xar. c'est impossible. alors très rapidement ñu ñëw si yow quelques